kon nag yàlla nañu yàlla may wér ñun ñëpp euh, monsieur le ministre defe naa ne ci commission finance maa ngi doon wax doléance hôpitalu Thiaroye hôpitalu Pikine bi nga xam ne niveau 3 la doon wax ci subvention bi nga xamante ne moom la ñu alloué l'hôpital de Thiar de Pikine waaye dégg naa sama collègue léegi wax que ne montant bi relevé nañ ko à 500 millions waaye nag xeebuñu ko di ñaan rek ñu gën ko yokk parce que euh, hôpital yu ëpp euh, daraja Pikine amna wala ñu yam té ñom défé na né egg nañu près de 1 milliard kon nak suñ subvention monsieur le ministre des finances ñu koy xaar ci 1 milliard parce que Pikine war na ko am parce que population Pikine a ko soxla bu lolu wesso ñu lay que né couverture maladie universelle hôpital Pikine soxla pour monsieur le ministre nous ngi le président de la république comme li ñuy wax macha que ne jëf rek am solo ndax sénégalais sénégalais yi daan faju bu ñu le plan Sénégal émergent mu nekk euh, sur 35 ci 35 ans Ah, defe naa ne kon da ngeen di am lu ngeen di def ngeen ñu leen di dolli ngeen di def ba kerek ñuy atteindre objectif bi ci lu ngeen def loo xamante ni nit ñi gis nañu ko que la politique sociale di président Macky Sall ci santé kenn nattable wu ko wax nañ fi couverture maladie universelle wax nañ ci centre d'hémodialyse yi nga xam ne bi ngeen di ñëw ñaar rek moo amoon muy Dakar ak Saint-Louis

def ko ci octobre rose jagleel ko jigéen nga xam tay dañu am problème de cancer du sein wala cancer de l'utérus kon monsieur le ministre jërëjëf monsieur le président de la république gratuité de la césarienne gratuité de de la dialyse waxna ko en soins de l'enfant de 0 à 5 ans plan Sésame pour ñi nga xam 60 am nañ ans defé naa ne lépp pour yombal faj bi ci li nga le le troisième âge plan ab carte d'égalité euh, de chance réalisation président Macky Sall defe naa kenn du ko monsieur le ministre l'objectif du président Macky Sall demeure sa forte volonté d'inclusion sociale ñepp xam le président Macky Sall cër bi nga xamné sur le plan si plan Sénégal émergent le capital humain mu nekk gis capital humain directives jël le plan de modernisation de l'administration sénégalaise monsieur le ministre dama bëgg nga jël ce temps nga dem sur le terrain nga sol blouson wala nga sol chemise nga dem ci bureau heure dafa am parce que tey li nga constaté yi man je n'ai rien contre eux

Comme M. monsieur le ministre jëlal say responsabilité Aïe, wuñu ñu ibbi une clinique am nañ le weekend am nañ heure de descente pour nous parler ñu dem clinique waaye yor ay malade Nous toog ci hôpitaux yi 8 heures Bon midi nga def le tour des cliniques clinique M. monsieur le ministre il say mesures ci mesures. je vous remercie madame la présidente merci beaucoup Ndeye Lucie